Madeleine Ndour à la parole, Nima Goudjabi se prépare. Bonjour chers collègues. Que toute parol tout action soit pour la gloire de Dieu et pour le bonheur des populations. Au non de Jésus. maa ngi nuyu ñëpp tey damay nuyu chef religieux yi ci dëkk bi bàyyiwuma kenn nag muy diine l'islam wala diine christianisme maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ne ñu ngi leen di yaakaar ci ay ñaan monsieur euh, madame la présidente je vous salue je salue euh, les ministres qui son présents euh, madame le ministre on peut bien dire madame le ministre comme madame la ministre c'est autorisé donc ce n'est pas une madame le ministre maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu monsieur le ministre du budget et monsieur le ministre aussi du travail may ne madame le ministre ñun dañu am ay doléance mais dañuy gërëm d'abord président de la république ku gisoon Sénégal les années passées gis ko tey nga dem dans les villages les plus reculés tu as loolu lañ ko wax parce que nag nit ki boo nekkee nit ku baax boo gisee lu baax dañ koy wax mais munoo taxaw ci ŋàññi ne dara baaxut loolu amul madame le ministre ma lay féliciter ndax sa liggéey bu rafetu doon duñ la fi tegaat ñëpp xam nañ la Sophie très poli courtoise Tu aimes ton pays, tu travailles bien pour le président et pour tout le Sénégal parce que tu suis sa vision. donc loolu kenn mënu ko didi fii bu la fi kenn jommal ñun xam nañu lu fi ne ministre bu fi ñëw dañ koy wax lu de quand on ko que da nga ne da ngay copp jox jox jox say mbokk ou je sais pas quoi encore mais c'est normal moi je dis bu koy wax ci waxin la rek parce que su fi mënul nekk Joal Joal lëndëm mënul nekk xanaa nag du doomu Joal man sens boobu laa ko gisee mais il faut pas qu'on le politise di wax ne c'est pour détourner ou fair autre chose soit tranquille loolu bu la jaaxal on est derrière avec toi et derrière toi aussi may wax nag di ne je suis la pour le département de Mbour tout le département ñu soxla ndax ay extension madame le ministre boo jëlee Mbour jël Saly Somone Joal Fadiouth Thiadiaye Popenguine Ndayane Malicounda Ngaparou ce sont des villes semi-villes mais bëgg nañ extension parce que day yaatu aussi ma ñëw nag ci ñu gën a soxla mooy ngéeñal mooy sanjara mooy fiisel mooy seeseen mooy njagañaaw mooy ngekoo sinja ak jas parce que commune yooyu configuration village yi la donc soxla nañu courant waxoon naa ko ci commission yi dañu bëgg di seetaan télé di am seen glace di euh, nekk ci comme ñëpp di charger seen portable yi nga jàppale leen boo jën a un problème spécial may nuyu le directeur de la Sénélec maa ngi koy nuyu bu baax waxoon naa ko ci commission yi éclairage public la ñu am problème ñu ñaan bu mu nee nekk parce que li ko wër lépp dafa lëndëm te dëkk bi day mag aussi vraiment insécurité bi la ñu ragal bu ñu mu nee am pour éclairage publique ñu renforcer ñu ci ay lampadaires tant mieux bu fekkee mën na nekk parce que commune Nguéniène nag soxla na électrification lampadaire aussi may wax nag ci liñ xew ma ne femme objet amu fi ñu sommes tous des responsables ce mot là cette expression il faut fi xanaa bu amee kon am na des hommes objet ñoo xam ne dañ leen yónni fii rek ku ñu saaga Macky Sall bu ngeen demee saaga leen ŋaññi leen saboté leen dañuy taxaw fii saaga Macky Sall di ko di joxoñ ministre yi ba bëgg leen naa dóor kenn waxu ci ma ne ñun du ñu mësa ñun dañuy fayu mais tooñuñu affaire bi duy jóge ci ñun depuis le début nag le 12 ba tey dañuy seetu 12 septembre lu ngeen bëgg nag ku fi wax Macky Sall ñu on est des qui ont travaillé dans nos communes, dans nos localités, des femmes et des hommes déterminés à travailler avec Macky Sall, à défendre son, son bilan aussi, et aussi respecter sa vision. Qu'on n'est que nous, les femmes objets. Bravo, objet, vous il y a des hommes objets qu'on donne des directives pour saboter. Merci. Parce que Macky Sall gagne quoi. Vous la nak Merci. Dañuy fayu. Li fi xew bu gàcci kese la. Merci beaucoup. Merci. Mënu leen ko defal ci leneen. Merci. Gnima Goudiaby président Gnima Goudiaby à la parole Beka Roqi Ndiaye Merci Madame la Présidente Monsieur le ministre du, des Finances et du Budget Monsieur le ministre du Travail Madame la ministre de l'Énergie du Pétrole euh, j'en profite pour saluer euh, Monsieur Manar Sall saluer également ma chérie Madame Badiane Anaïs ils font partie de votre équipe mais ñëw ni wax na le diagnostic départemental depuis 2016 réalisé entre le conseil départemental de Bignona et la Savoie son partenaire sur les attentes des populations dans les communes avec comme enjeu principal entre autres soutenir le développement local par la promotion de la filière énergie solaire photovoltaïque et à ce niveau-là on a mis en place un dispositif de facilitation d'accès des populations à des acteurs de l'énergie solaire. C'est dans cette perspective qu'il a été envisagé la mise en place d'une structure appelée Casasol, Casamance solaire. Par le développement de l'énergie solaire photovoltaïque, par l'animation d'un réseau local d'acteurs professionnels, en vue d'abord de renforcer l'expertise des techniciens et des enseignants. Et là, à ce niveau, on a le CFP de Baïla, qui est dans cette énergie solaire-là. On a l'ISEP de Bignona aussi qui est focus au niveau de l'énergie solaire. Par également un appui au conseil et montage des projets aux organisations professionnelles. On a actuellement, on veut développer un partenariat avec les structures de l'État, accompagnement, une convention d'accompagnement avec l'ANER. Comme le directeur est là, j'en profite euh, voilà, pour insister là-dessus. Et également, euh, développer une stratégie de déploiement de la formation école-chantier sur le terrain et ce qui est en train d'être mis en place. Parce que déjà, euh, mon homologue Bakari a insisté sur la situation au niveau de différentes communes. J'ai préféré parler de Casasol. Et là, euh, grâce à la diligence du ministère des Finances, on a pu quand même euh, la situation. Voilà, on a pu quand même, je pense bien que c'est sorti Euh, ce qu'on nous a envoyé au niveau de, de, de l'énergie euh, solaire de France, l'INES. On a pu, euh, disons, on a pu, <laughs> on a pu déjà, disons, prendre possession, on a pris possession de ce qu'on nous a envoyé au niveau de l'INES. Et je vous en remercie d'ailleurs. Voilà, pour revenir à la situation, li fi amoon démb dama ko parce que ndax lan moi je à Dakar j'ai grandi entre Dakar Tivaouane et Bignona ma doon taalibe sëñ Mbay si Abdou donc la famille là famille boo xamee ne ñëpp ma xam ci famille bi donc démb la ma fa gis vraiment daf ma métti lool lool lool lool lool et di nuyu ña ma bokkal daayira mooy daayira rahmati bu doomu sëñ Mbay bu sëñ Mansour si mi gaaju xalifa di wax ne xam nga nit ki da koy gis muy dem xamoo nit ki lan lay représenté ñun tey ji Sénégal am na loo xam ne dañ ko fonk mooy suñuy sëriñ ku nekk na nga may sa cër sa morom loolu mooy tax ñuy avancer le respect doit être mutuel ñu xam ne tamit jigéen dañ ko war a suturaal jigéen dañ ko war a suturaal man démb vraiment fekk ma fii parce que je me sentais pas je me sentais pas bien j'étais chez mon médecin retour la fekk la dégg histoire bi mu demee vraiment maa ngi ciy jéggalu ñëpp waaw di masawu ñëpp parce que lii dafa métti en tant que femme tamit dafa métti en tant que femme dafa métti c'est une te am na ci ay gaañ-gaañ yu ci am moi je suis pharmacienne je suis au courant de tout ce dossier là donc may wax ne vraiment ndonu mayante cër yàllaa tax on s'est retrouvé ici à l'Assemblée yàllaa xam lu tax mu boole ñu dans cette quatorzième législature la lépp rafet daal Roxy Ndiaye à la parole Soxna Mbodj se prépare merci madame la présidente euh, monsieur le ministre euh, madame la ministre maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu say collaborateurs di nuyu aussi honorable député yi nekk ci euh, hémicycle bi yëpp euh, madame le ministre <clears throat> dañoo damay euh, démarrer samay euh, propos euh, par rapport ak électrification fi nga xam ne ni moom mooy dans la commune de Kaolack dañu gis ne d'abord au niveau du marché de Kaolack dañu bëggoon ngeen gën a renforcer li nga xam ne moom mooy énergie si fi nga xam ne moom mooy le marché de Kaolack parce que marché bi dafa gën a yaatu et puis yi fa nekk léegi dañu sans machine yi nga xam ne mooy machine électrique euh, yi nga xam ne dañ koy euh, branché ci électricité moom la ñuy faral di utiliser di coup dañuy soxla bu baax a baax li nga xam ne nii énergie bu doy ci biir marché boobu noonu loolu bu loolu weesoo aussi madame la ministre ñu bëggoon tamit extension du réseau si yi nga xam ne nii moom mooy les nouveaux quartiers euh, surtout bu ma jëlee exemple fi nga xam ne mooy excentré bu Kanda ak Ngaan extension ak Ngaan Budduxaan nga xam ne nii si géo la bokk mais dafa ko jege trop si biir biir Kaolack bu loolu weesoo aussi ñu bëggoon euh, madame la ministre li nga xam ne ni moom mooy euh, lampadaire diggante fi nga xam ne ni moom mooy la si route nationale bi diggante gaz Dakar ak euh, bu bu njëkk ba ak gaz Dakar bees bi dafa lëndëm foofu dafa lëndëm des fois dafay am accident yoo xam dafay am te dal lu koy causé lu dul lëndëm bi nga xam ne ni am na diggante boobu ak fi nga xam ne ni moom mooy biir garal Dakar ci boppam ci loolu aussi même soo diggante fi nga xam ne moom mooy mairie bu Kaolack jëm quartier Ndorong yoo yoon boo tali boobu aussi dafa lëndëm ñu soxla woon foofu tamit vraiment mu gën a am éclairage en plus de cela aussi les quartiers comme euh, euh, Fass Cheikh Tidiane Daaru Rahmati ak une partie des parcelles assainies de Kaolack bu loolu weesoo aussi dans la commune de Latmingué euh, ñu bëggoon tamit li nga xam ne électricité si yi nga xam ne village yi nga xam ne par exemple comme ci kat Boyngel ci kat Kër Maamu Seck ci kat Ndéri ak Coobel ci noonu ak yeneen village yoo xam ne ñu ngi si biir commune Latmingué biir commune Kër Soose aussi village yu mel ni Kaolack kat Thiamène Taba Niassène Batara Wolof ak euh, batara batara ñetti batara yi am yëpp ak dabaan ñett euh, six dabaan yëpp ak fi nga xam ne ni moom mooy ngindoor naka noonu tamit noonu lañ ko soxlaa aussi si fi nga xam ne ni moom mooy euh, commune u Ndiédiène nga xam ne cinquante huit villages la mais quatorze quinze donc moom moo si am électricité te mu nekk ay dëkk yoo xam ne dëkk yu mag lan dëkk yu mag lan boo xoolee dëkk bu mel ni paymaar Kër Giran Kër Bokar Sow Sexla Jarga ak caaxu caaxu njigaan ak aafe ay dëkk yu mag lañ te vraiment amuñu électricité te monsieur le monsieur le DG euh, de la Sénélec ma koy nuyu de passage euh, am na promesse boo xam ne gars yi nee nañ defoon nga ko fa ñu ngi lay xaar bu baax mooy waa commune Ndiédiène nee nañ ñu ngi lay xaar bu baax a baax surtout village xam ne ni cité naa ko foofu noonu euh, bu bu leelu weesoo commune bi nga xam ne moom mooy commune Kër Baka aussi dëkk yu mel ni ay njigaan ak yeneen yoo xam ne ni ak ak fi nga xam ne ni moom mooy Koné ak dëkk yu ko ñoom it soxla nañ li nga xam ne ni moom mooy électricité di wax rek toujours que ne euh, comme ni ko ñëpp waxee la femme warul nangu nekk koo xam ne dañ koy manipuler dafa war a incarner des valeur nekk jigéen bu nekk ku responsable te xam ne moom dafa war a représenté li nga xam ne ni moom mooy une société te dafa war a dafa war a incarner tamit li nga xam ne moom mooy responsabilité je vous remercie. merci Soxna Mbodj à la parole Ablaye Diagne se prépare. merci madame la présidente ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay euh, madame la ministre ñu ngi lay nuyu di nuyu ministre yi sa wet di nuyu seen collaborateur yëpp euh, di la xamal madame le ministre euh, ñun ñi jigéenu Waalo yàlla dafa def ñu am chance bénéficier woon première phase MCA ñu defoon ko ci secteur agriculture bi ñu nekkoon nag jigéen ñoo xam ne dañu jouer bu baax pour que américains yi accordé Sénégal deuxième phase parce que programme boobu bu mu amee dafa am ay mesures d'accompagnement te mesures yooyu bu ñu ko jëlee dañu jox jigéen ñi ñu bay ñëw exposer produit congrès américain ñëw lu mat 40 ñëw teewee ko jigéen ñi défendre euh, euh, cause boobu pour ñu jàppale waat Sénégal ñu am deuxième phase ñu ni ñoom bu ñu demee dinañ taxaw nii ñu jàppalee jigéen ñi dinañ taxaw bu baax ba Sénégal am deuxième phase MCA toujours maa ngi ci doon jékkal ñi nga xam ne ñoo yore woon programme bi après ñoo ma woo ni ma accordé nañu Sénégal deuxième phase après ñu woowaat ma ni ma deuxième phase bi ci secteur euh, énergie lañ koy def kon joué nañ ci rôle bu am solo wane rek euh, jigéen am solo gi mu am solo ak euh, américains yi ñu ñu joxe jigéen cër jox gëdd jigéen kon yaakaar naa ni ñun Sénégal ñun ñoo war a jëkk jàppale jigéen ñi duma ci wax lu bari nag damay xaar ba ngoon Euh, doléance yi dafa bari di nuyu bu baax a baax directeur euh, Sénélec parce que nag Sénélec dañ ko dénkoon suñu doom mu xam Mouhamadou Makhtar Cissé mu liggéeyoon ci liggéey bu am solo ci département Dagana waaye bi mu ñëwee de euh, directeur bi tey ñëw continuer liggéey boobu di ko def ni mu waree ñu waxoon la nag ni la centrale solaire bu bokkal centrale solaire bu bokkal dañ waxoon ni dañuy def Euh, pompage bokkal dañ koy installer solaire système boobu defoon nañ ko ci pompage bu Dagana ñu bëggoon bu doon suñu sagoo ñu démultiplier ñu ko ci gaaya defal ñu ko gaaya defal ñu ko bokkal defal ñu ko euh, euh, Ross Béthio ci secteur agricole yu foofu ak pont gendarme ñooñu ñëpp am nañu ay pompage yoo xam ne day irriguer ñu jàppale leen ci defal ñu ci solaire bi dina am solo te dina wàññi coût électricité bi à ndomb ñoom extension la ñu soxla 400 TVA te KVA Euh, di wax ne am na dëkk bu nekk ci benn île ñu koy wax xare xare dafa nekk ci île bi moom bu doon suñu sago ñu jàppale ko mi ngi ci commune de Bokhol jàppale leen ci courant village yi nga xam ne ñoo nekk ci commune de Bokhol ñoom renforcement la ñu soxla ñu jàppale leen ci bu baax a baax bu ñu ñëwee ci mbaan mbaan même chose ñoom dañu bëgg ñu renforcer leen te dañu wax ni comme euh, commencel sonal na leen bu doon seen sago ñu yóbbu leen ci réseau Sénélec bi euh, département commune de Niit ñoom tamit extension yi la ñu soxla ñu jàppale leen ci bu ñu ñëwee ci commune de Diama nag bare na village yoo xam ne village de Niassène village de Niassène euh, Polo Polo ñasen euh, euh, treize Pël treize Mour Amoura Amoura Mberaay Jama Pël Asie Asi Mbera Beyti Alwàccam Guynaar Udabe Nawara Furaaraat Sutu Fulbe Urul Islam Mband njool pël ja jasar naa su jasarnaabe sumbe bi ñun ñëpp amuñu courant bu doon vraiment monsieur le ministre madame le ministre ñu ngi lay wax nga jàppale ñu ñu am courant ba di dellu di gërëmaat Euh, euh, le directeur général Sénélec keroog ci commission yi bi ñu waxee suñu suñu soxla yooyu vraiment trois jours lañ ci teg ñu wàccee euh, personnel bi ci ci ci ci terrain bi ñu commencé def liggéey bi ñu ko ciy gërëm bu baax a baax itam di gërëm son excellence de président Macky Sall ñett mën nañ ko seedeel le président Macky nit bu yaru la nañu wër Sénégal bu mu daj kenn du fi gis audio boo xam ne dina wax ci nit lu ñaaw li mu ñu jàngal mooy yar ak teggin